nataal fukk ak benn bi aadama ak awa ñàkk déggadeel yàlla ci toolu àjana bi yàlla dàq na leen ñu sori kanamam nu mu nekkee yàlla bu sell kon mënul dëkk ak nit ñi am bàkkaar waaye yàlla dafa wéyale bëgg aadama ak awa bu mu leen weesoo seeni doom ak seeni sët balaa dàq aadama ak awa yàlla digoon na leen dina leen indil musalkat ci kaw suuf waaye balaa musalkat boobu ñëw yàlla digaloon ne nit ñi ñuy saraxe ay mala bu ñu tànn te mu baax lool ndax mu muur seeni bàkkaar fu ñu reye woon mala ba def ko sarax yàlla day fàttaliku lu mu digoon aadama ak awa mu baal góor bi ak jigéen bi defoon lu bon yàlla mënul woon nangu leneen lu dul doomam yéesu muy doomu yàlla bi waroon ñëw ci jamonoom ci biibal bi yéesu dañ koy woowe mbotem yàlla moom mi war a dee ni sarax pour mbindeef yépp ci kaw suuf